sëriñ bi soxna si bu dee yaa ngi soog a dugg ci chaîne bi di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné ba noppi ba sa cloche de notification bi lee ngir mën jot suñu vidéo mooy ndigal bi jib Ousmane wuyu woo boo buggee sax wuyu woo xam nañ ne bëgg nga dem doo wuyu ji taxaw sa kanam doo wuyu ji Macky Sall nag lenn rek lañ koy wax boo ko laalee boo ko laalee boo ko laalee ñu ngi leen di nuyu yéen waa Kër Massar bala ñuy sori ci wax ji dañuy ñaanal Mariama Sagna moom mi nga xam ni moo li ko dal moo waral ñu daje fi tey di ko ñaanal yàlla xare ko aljana di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeru bàmmeelam di ko ñaanal yàlla yàlla dencal ko ay yiwam di wax waa ñu que di wax ne leen xeex bi du seen xeex xeex bi du xeexu Ousmane xeex bi du xeexu yewi Askan Wi xeex bi peuple sénégalais yépp la donc may wax ak justice bi parce que li ñu dajale fii tey illustrer ne justice sénégalaise de narmelu Maria Sagna ñu depuis 2018 ana dossier bi lu ci wax ana datu jugement ana instruction seen Nyon Nekuchi. ci ñu ngi wax les juges de ñu généraliser di wax maa xam xaw ma maa xam ma la planète Mars la planète Jupiter extraterrestres, extraterrestre sénégalais là, bu am ay les sénégalais là, bu am ay mak ak ay rak, sénégalais là, bu am ay les sénégalais là, Sénégalais, dëkk ci dëkk bi ñu di wax ak ñi nga ni ñom la nekkal te ñu les bras armés de Macky Sall ñu leen di wax ne leen dès lors que Macky Sall mënu leen garantir ndax dingeen ngeen dund fii ak suba mënu leen garantir ndax fii ak mois prochain daa ngeen dund mënu leen garantir ndax 2024 dana leen fi fekk lu tax ngeen di nangu mu leen di def loolu askan bi bëggul lu tax ngeen di nangu mu leen di def loolu sunu borom bëggul Macky Sall dafay dem mu xam ko mu ñàkk ko xam dafay dem yéen ñi nga xam ni yéen a ànd ak moom mu nekk ci Benno Bokk Yaakaar mu nekk ci justice bi ak les forces de défense et de sécurité ñu ngi leen di wax yéen it ne comme ni mu valable ci Maham Diallo jógewu leen ci benn planète ay sénégalais ngeen bu leen nangu mukk ñu defloo leen loo xamante ni bu fi jógee du nekk luñ luy rafet yéen bu leen nangu map Sall màbb ànd donc les forces de défense et de sécurité la justice ñu ngi leen di wax ne mieux vaut tard que jamais Nous l'en tok ci wetu askan bi askan bi moo leen fi tek, askan bi moo fi bàyyi défendre l'en askan bi jéem na écarter candidat am yëpp adversaire am yëpp mu fa écarter leen booba ni respiration démocratique bidina dina am moo mané pasteur tatchu len sen bop tatchu len sen bop tatchu len sen bop parce que vous êtes un jeune parti mais vous êtes une bonne nouvelle pour la démocratie vous êtes une bonne nouvelle pour l'avenir de ce pays da ngeen ñew ci politique bi jox ci seen waar indi ci lu ko autour de cet homme vous avez construit une force en même pas dix ans amna parti yu fi def trente ans 40 ans yéen da ngeen a wone seen bopp wone seen taxawaay taxawaay boobu ngeen taxaw moo tax Ousmane Sonko toog fii ba léegi parce que ñëpp ñi nga xam ni woolu woon nañu seet mascarade de justice ñëpp ñu nga xamante ne déglu woon nañu ay wax sànkal nañu pexe seen candidat kon seen taxawaay moo tax mu toog fii ba tey dama ni damay rectifier lu ndaw dafa am sànq ba léegi ñuy wax Ousmane Sonko bul wuy ji procès affaire bi du problème mu procès ndax man mi taxaw 2021 fekk naa ko biir saalam ñu ñaan ko ne ko demal nga wuy ji jógal nga dem bul may président Macky Sall li mu bëgg mooy mu caxat caxatee la boobu dañu yaakaaroon ci justice bi mais qu'est-ce qu'on a vu justice amu fi kenn du jël paaka di ko daas di ko jox sa noon kon nag du dem ci mascarade boobu du dem ñu koy rendi du dem du dem du dem. benen bi ci dess ñun ñi nga xamanteni ño magge senegal xam ngeen ni niñu magge metti na kep ku sagan sa rax jaar fi nga jaar wala su dom sa jaar fi nga jaar tu auras échoué dans ta vie et tu vas rendre compte auprès de Dieu. benen bi ci dess Ousmane Sonko ñu wax wuyu ji dama bëgg ñun ñëpp ñu no alhamdullilah rabbil alamin parce que président Ousmane Sonko falu na ba pare ngeen may ma touti ma wax ak sama mbokk Haalpulaar yi sama mbokk Fuutanke yi. mbeɗa wimon oɗo ousmane sonko mo gandanɗa hoorema moon ɗo daari kanko waɗi hande porté le combat de cheikh oumar fouti tall oɗo président ousmane sonko daariɗo oɗo darni souleymane souleymane bal hande kalko wonno fouta e darde e gonga e tigui hande ko ousmane sonko darni ɗum kalmo wondani ousmane sonko aɗa woni haalpular a jamfimo cheikh oumar fouti tall kalmo wondani président ousmane sonko a jamfimo souleymane bal makki sall pijiri hen enen haalpulaar en ken yimɓe goonga enen haalpulaar en allah koko warno men dow hannde en mbawa rewde oɗo mo gandanɗa ma ko bollo puyɗe enen pijida allah jarama on jarama mariama sagna moy fàttaliku itam ni ngiru nguuru Macky amul justice amul paix ndaxte dañ fii rey ay jigéen depuis ay at faalewuñ ñu moo ko rey waxuñu en fait mbir mi naka la demee et réew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 The bëgg liquider politiquement Ousmane Sonko ndax di ko nangu ndax di ngeen ko président Macky Sall def sondage Munen ne ndax demul élection Ousmane Sonko dem élection kan moi gagné sondage yi Ousmane Sonko moi gagné dès le premier tour mu defat deuxième sondage mu ne ndax man Macky Sall buma ma élection Ousmane Sonko dem élection lan lay joxe ñu ne ko Ousmane Sonko moy gagné dès le premier tour. Macky Sall and ak nous yi ne mu faragal Ousmane Sonko fokk mu liquider ko Ousmane ñun ñoo réunion sommes dama bëgg ñun ñëpp ñu wax Ousmane ne ko Ousmane wuyu ji résistance c'est la lutte libère. bokk yi Ousmane Sonko c'est l'incarnation de l'aspect temporel des enseignements de nos vénérés guides lu ñu Serigne Touba jàngal ci ngor ak diine li ñu Alhaaji Malick jàngal ci ngor ak diine li ñu Maam Abdoulaye Niass jàngal ci ngor ak diine jëmm ji koy incarné mooy le président Ousmane Sonko bokk yi le Sénégal est réputé être un peuple lâcheur nit ñoo xamante ne saa yu ñu daw ñoo seetaan Mamour Dia ba mu na sax ñoo seetaan Cheikh Anta Diop ba mu na sax ñoo seetaan Omar Blondin ba mu na sax ndax da ngeen di seetaan le président Ousmane Sonko ndax da ngeen di seetaan le président Ousmane Sonko dama ne daara yi nga xamante ne ñoom laa fi nekkal ñoom teelul senegal doon ñoo ko ko def seen bakkat du fekkee Macky Sall di nasaxal le président Ousmane Sonko ndeysaan Pastef dañuy wax baat bu am solo le président Ousmane Sonko dafa taal xel yi loolu bi ma ko déggee dama ne décidément les grands esprits se rencontrent Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulullah dafa wax lan mooy politique u yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam wahab lahu siyaasatan tunawiru huqula man xalaqta ya musawiru la politique du du prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam c'est une politique d'éveil de conscience salatan siyaasatan tunawiru politique bo xamante ne day tal xel yi comme ni ko sunu mbokk Birame Souleye Diop waxee dama ne dama ne Sénégal résistance résistance résistance bu ko suñu bakkan fekk mukk wuy jiwoo tey wuy jiwoo ëllëg wuy jiwoo ginnaaw ëllëg man ku ma xam xam ni politique ci dëgg laa mos a taxaw ba ma nekk tu tànk ba ni ma toll nii bokkuma Pastef bokkuma beneen parti waaye réew mi moo ma ñor képp ku ñu fi bëgg jaay doole damay taxaw sa wet ni kenn du la fi jaayee doole dama ni buñ ko tegoon ci yoon seen dossier tappale bi section de recherche sax waru fa woon a génn bañ naan day dem instruction kon nag seen tappale yi duñ ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Ousmane Sonko demul fenn la dul bouger suñu bëggee jàmm suñu bëggee jàmm su fekkente ni Macky Sall dafa bëggee yeggale nguuram ba 2024 mooy na bàyyi jëmm ji muy Ousmane Sonko

ñu bëgg nag wax lu leer nañ instruction ba la fa am doyuñu ba ca bureau cap euh, euh, nu sax la fa am doyuñu seen projet caaxaan bi ñu bëgg président ñun mag ñi bëgguñu nga dem fa te doo fa dem te nag ndegam xale yu ndaw yi nga xam ni ñu ngi seen ëpp dund ñoo ñeme dee ñun mag ñi nga xam ni dee nañu ba pare waxuñu ak ñun ngeen di laaj yéen mag ñi incha rabbi balay kenn di laaj président Ousmane Sonko sunu kaw ngay jaar. ay jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ana jigéenu Pastef ana jigéenu Pastef xoolal leen ma lingeer yi. Ils sont prêts à tout pour défendre le projet de PASTEF Taïdi, nous taxaw nañu place bo xamné xol yi sori nañu place bi la nous avons ak Mariama Sagna Bobu ba tay kenn waxul ci mom dara te dossier bu nek amna fi Bañuy dem CDAO difa

Ousmane Sonko nak Ousmane Sonko nak foog naa suma frère maire Bara Gaye li mu wax mënuma ci tegaat dara sama yaram dafa daw monsieur le maire tu as dit quelque chose d'essentiel Sénégal mënul fay Ousmane Sonko ko xol li ko xol mbolo mi boo da nga bëgg Ousmane Sonko da nga rep bobu ba boobu batay tey ñu ngi dal ci kawam boobu ba tey ñu ngi xeex ak moom lu ne teg nañ ko ko waaye enough is enough enough is enough ça suffit mani je suis le seul maire de Pastef au niveau département de Keur Massar mani kii toog nii cetu karaw cetu karawam ku ko laal doo nga def loo xam mosoo ko def ci àdduna man munuma maslaa man capitaine man maay capitaine président Ousmane Sonko man duma maslaa ak kenn ak régime bu fi mënti nekk woo nañu ba sonn pour ñu transhumé ñu bañ ñu leen kii moo ñu doy Ousmane Sonko moo rek moo ñu doy du ñu jaay suñu ngor mukk ñun nag chaque jour day téye suñu ngor ngir la président Ousmane Sonko xam ngeen xam ngeen laa traite négrière nit ñi dañoo jàpp ni jël nit dool ko ci gaal yóbbu ko Europe loolu mooy traite négrière traite négrière moo ngi nekk ci ndekk sa biir dëkk te mun a am souveraineté sa lépp yokk sa lépp seer te mun loo moom sa bopp loolu mooy nekk jàmm loolu mooy nekk jàmm sa biir dëkk may sant di gërëm la diaspora diaspora bi li ñuy sonn ci parti bi li ñuy sonn ci Sénégal ñun gis nañu ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm bu wane ñëpp discours bi historique mais du fi xàcc mais booy wax ne yéen ay jeune ngeen man jeune laa comme yéen ma nekk maire président Ousmane Sonko am ci man confiance élire ma def ma candidat ma nekk maire te ñun jeunesse bi Ousmane Sonko war ñu gën a gore may wax lu ndaw man Mouhamed Bilal nee naa wuujuwul du wuuj convocation du dem procès te lu ñu bañul bañul ñu ko si incha allahu rabbi maa jël cet engagement pour ce peuple. Kër Massar wure wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taali lu waaye doon jaay foog mu lamb yaakaar naa ni ni ko wolof yi di waxe cey su ko laale merci grand frère Ousmane Sonko merci d'avoir inspiré cette jeunesse sénégalaise merci d'avoir donné goût à la jeunesse sénégalaise merci d'avoir ouvert nos yeux j'ai été jeune ministre de la République en 2012 nous avons Macky Sall ma dougal ci kasso bi pendant six mois dara takul. Waye cey bi la bëggee un jour je t'ai dit merci grand frère parce que ya ñu yaral ce régime et jàpp comme vous l'avez dit c'est à vous jeunesse du Sénégal de sécuriser ce gars c'est à vous, jeunesse du Sénégal, de sécuriser Ousmane Sonko, parce que c'est une chance pour le Sénégal, c'est une chance pour l'Afrique. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sénégal, Sénégal, n'est pas un pays que l'on gouverne avec le fusil, mais c'est un pays que l'on gouverne avec intelligence. xeex bi nga xam ne mi ngi koy sooke yow Macky Sall may wax ak yow ñi la ëpp doole soo nañu xeex boobu te muccuñu ci Hosni Moubarak ci Égypte moo la ëpp doole sooke ne xees bi xam nga fi mujjee Ben Ali ca Tunisie moo la ëpp doole sos na ko xam nga fi mu mujje boo ñëwee ci Afrique la jege gii Alpha Condé barki demb soké na xex bi xam nga fu mu mujjé Yaya jamé yaa yak fi jëlé xam nga fi mu mujjé bo démé Burkina Faso Blaise Compaoré xam nga fu mu mujjé bo démé Mali Ibeka, xam nga fu mu mujjé ndax da nga ñaan yàlla mujj fofu yow Macky Sall li tax nga mën ci muccu nak moy li xalé yi wax nga Kondal, la suñu waji kon dal boko xam nga nak waaw lu ngeen wax ci candidature Ousmane nous nous les jeunes nous sommes wax Ousmane man daal de boobu saf na ma lool et on supporte cette candidature bravo Pastef bravo Keur vive la victoire en 2024 incha Moi, je yéen a gën a xam amul lenn lu ñuy jël di ko may Ousmane Sonko kon xalaatu leen ñu jël noolier di ko may Sonko loolu moom yéen ñëpp xam ngeen ko mais léegi dossier bi yóbbu nañ ko chambre criminelle lii ma leen di wax nag damaa bëgg yéen ñëpp ngeen dégg ko chambre criminelle amul benn dossier bu fa mës a dugg ci at mi ñu atte ko ci at mi ñoom nee nañ politikuñ nee nañ dossier euh, privé la seen yoon nekku ci kon nañ respecté procédure bi nga xam ne moom la chambre criminelle masa doxe saa buñ jàppee ab atte ci at mii muy 2023 bii suñ ko ci attee rek na ngeen xam ne bëgg a empêcher Ousmane Sonko mu nekk candidat moo ko tax a jóg waa loolu nag loolu nag bu amee ma ne loolu nag bis bu ngeen déggee ñi ne fii ak élection yi jàpp nañ datu usmaan Sonko di ko atte makki sàll di nga xam ne réew mii ay sëti Serigne Touba fi ne réew mii ay sëti ma Abdoulaye Niass fi ne réew mii sëti Lat Joor a fi ne réew mii sëti Njaajaan Njaay fi ne réew mi jom jom ak fula ku ñàkk fit ku ñàkk jom juddoowul ci réew mi bis boo laalee Ousmane Sonko billaahi wallaahi tallaahi sa nguur day daanu Macky Sall Macky Sall Macky Sall yërëmal sa bopp mag da yërëm sa bopp gis nga Président Ousmane Sonko. C'est une fierté nationale. C'est une fierté africaine. Protéger Ousmane Sonko, c'est protéger notre démocratie. Protéger Ousmane Sonko, c'est protéger les libertés. Ousmane, yow Tissabop, sa bopp xam dangay Ousmane, yow ci sa Bok. xam nga ni dangay bok Ken ce que Ken Red muy kan muy kan gis nga Macky Sall gënuñu nekk ay njaacaar gënuñu nekk ay njaacaar moom ci boppam du Ousmane lay tere mu bokk de parce que xam na ni mënul nekk li muy jëm mooy nu mu bokkee wante du bokk te Ousmane dina bokk gis nga li ma bëgg ngeen xam ko sénégalais yi ñi nekk ci biir au niveau de la diaspora xam leen ni l'heure est grave quand l'heure est grave cela demande la détermination de tout un chacun est-ce que vous êtes déterminés est-ce que vous êtes déterminés Ousmane, je l'ai dit à travers un communiqué, tu as mon soutien total. Tu as le soutien total du PRP. Tu as le soutien total de Yewi Askanoui. gis nga Macky Sall Sénégal gi te daan ka wan ni moomul Sénégal gi ndaxte nous, ñun Sénégal Dafno noo ñor na xam ni benn mbir moo ko fi dese mooy génn bu rafet na jéem a liggéey ci génn bu rafet lu dul loolu lum fi yëkkati ñu jàkkaarloo ak moom Ousmane doo ko fi laal bul ka laale merci beaucoup sëriñ bi soxna si bu dee yaa ngi soog a dugg ci chaîne bi di TNM TV ñu ngi lay ñaan nga abonné ba noppi ba sa cloche de notification bi lee ngir mën a jot suñu vidéo